Sénico mi nga xam ne moo ñu indil buurug meew yi di mooy meew mu alip am na vitamine A B D E am na calcium am na zinc boo ko wayelee mën naa dem ci laax ruy fondek càkkiri suñuy xëdd moo ca gën suñu ndogu moo ca gën mooy mu alib lagal wuti ko ci marché yi grand surface yi boutique yi foo dem da koy am am na zinc am na calcium ay ca Zik FM Zik Feeling ba tey ñu ànd caag Umu Express Umu groupe mi nga xam ne lépp lu aju ci wàllu électronique électroménager mën na ca raw na ci indil ñu li nga xam ne moom moo di promo ramadan wàññi na lépp loo xam ne ay njëgam la kon la leen gaaw ngeen profité ci man caa bànneexu ay ca Zik FM Zik Feeling door ci diggante 12 jàpp 14 heures ànd ceeg l'animateur des quatre points cardinaux ki toj pa lañ atte géeru tubaab ragal du ko wax maa ngi nii Cheikh Sarr la borom bëggal ki la bëgg ngir ki la bëgg nga bëgg ki la bañ ngir ki la bëgg ñu ànd di bëggante la kulaal fii ci Zik FM ak Sen TV nuyu nañ bu baax a baax a baax téléspectateur u Sen TV ak internautes yi nga xam ñoo nekk ci page officiel bu Sen TV ñu ngi nuy auditeurs u FM 89 point 7 waaye di bëggee baax a baax internautes yi nga xam ne ñoo nekk ci page officielle bu Zik FM di jaajëfal bu baax a baax Asma ak team bi nga xam ne moom la àndaloon ci Subatel Zik Feeling doon na nag ñu ànd ceeg jàmbaar ak Serigne Saliou Mbacke bi mu di Mouhamed Niang mu Serigne Saliou Mbacke Mouhamed ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci studio. Euh, Mamadou la Mamadou Ndiaye Dos waaye dalal la ci Sen TV Zik FM ak ci suñu ñaari page ñu ngi lay nuyu baax baax Mouhamed Niang di la dalal. Cheikh Sarr maa ngi lay fay. Mhm. sama xarit bi maa ngi lay bëggee. Philippe. di la wax namoon naa la. maa la raw lu bëree bëri bëri. bal naa la bal maq. déwénati. yow ameeloo kenn àq. ndeysaan baax nga am nga yar. am nga diine am nga lislaam te am nga ngor. macha allah yow da nga baax te gën. jërëjëf Cheikh. torfaka. maa ngi nuyu àdduna bépp. Mhm mbolé sen kuy bayyi xel jig fm fu nit mëna nek ci adina bi ma mhm. nga lay nuyu ta di la siyaar mhm. tey jiital ci nuyoo bi cheikh mohamadou muntaha di diko ñaanal ñaan yi ko mbindeef yépp di ñaanal sunu borom nangu ko muy mu yàgg fi amin amin amin. amiin noonu lañ koy ñaanalee suñu wasilo serigne cheikh mhm. mu serigne saliw ak mbolé sen njabootu serigne saliw gi noo ngi nuyu àdduna bépp di am mbégte nag ci dellusiwaat fii ci noonu la ñuy xoolee sunu xarit bi sunu mbokk mi di ko ñaanal. Mhm. mu nekkoon sunu wëllëre. wallaay ndeysaan nekkoon ku ñu bëgg. daan ñu daan ñu digal daan ñu conseil wallaay dëgg kon ñoo ngi koy ñaanal sunu borom yokk ay leeram. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf Cheikh. ay ca mi ngi noonu mooy sunu gan tey muy euh, Mouhamed Niang mu Serigne Saliou Mbacké. suba nag moom mooy 17 euh, avril ku ne xam na ne 17 avril euh, ca la ñaari jëmm yu sell yu tedd yooyu daje woon mu di Serigne Saliou Mbacké ak Cheikh Béthio Thioune mm-hmm. tey nag ñun dañuy daal def suñu 17 avril euh, ci boobu tamit ñuy fàttali internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci page officielle bu di leen ci bàyyi seen numéro téléphone ndax mën nañu jékki-jékki këf leen daal leen yónnee seen xëdd seen ndogu suñu mbokki kerceen yi tamit ñu yónnee leen seen njëgu euh, seen seen njëgu ngalax euh, ñu ngi ñu ngi nuyu bu baax a baax a baax suñu mbokki kerceen yi di leen jox seen yéeguwaay te it nag di leen souhaiter une très belle ndax ci dund gi lañ bokk mu rafet loolu loolu diggante bi rafet loolu kon euh, faw ñu nuyu leen jox leen seen yéeguwaay Mohamed Niang liñ koy dooree nag liñ koy dooree nag mooy way wi nga xam ni way nga ko way way nga ko Serigne Cheikh mu Serigne moom la ñuy dooree ubbee ko rek nuyoo ko askan bi seddale yaay sama sanga neex nga lay bëgg wax ak tooy turam ndax leer bu yàlla gisa yaa nga fa di baat yu nu sët ba ko yor njaxate yëngu ma way yaay sama sang neex nga ma lool te ñu fee ba lu jëm say seet bi yàlla gërëm bamba jël ci jërëm mu sobee njaxate ci la dara maan yaay sama sang neex nga ma lool tagg giir ba ma ci sa bu ma taaru ndumbe diir jam nga tiim yaay sama saga neex nga ma lool day nga nu feefalu jam sey sey ay rem ak i baatinam ku am du cam sëriñ seex rekk di ñam yaay sama saga Türlü durmam, duçamam de kodarım Yokka birem Ya sana sana Neyem kamalar Neyem ufe Konducam seyse Muhammed Ganap Binti dala Gefel Gaba jafun ilaca Jep serinşe Yay sana sana yee bëgg ko kay neex nanu kay yaay sama saga neex nga ma lool te ganu fee ko nu jëm sëysee taxul njaram ndax soom rek a am ndax bani nga ngi ku naan yeesu rahmaan yaay sama saga neex nga ma lool te ganu fee ko nu jëm sëysee sëriñ ni la di mel ni xaw sooy ki la رب الأرش يا مدخلفا يا سما tabax air plus yaa ngi jumaa plus coon ak alal jox nga yàlla mooy doxal xalifaam ni ngay mel yow Mbacké jowli jowli jowli sëñ Seex Saar wooy waajal laak lu ne bàyyi laak biram na ngay joowu gaal gi le yow Mbacké fu ne di la seen turoon sa waajur wa ber la bila wala warat leen kii bay bu mel ni dootul am jeex na àdduna yow Mbàkke jolli jolli jolli seen seex saali woon ma ne lu raw seen jinne ku ci gis rawan ba seex saali rekk la yow Mbàkke wala I'm sorry, ngeen yegal Mbàkke ndeysaan tubaar fa kàll fi mu toll nii euh, réew maa ngi yëngoo boor bu nekk Mohamed Ñaaw mu Serigne Saliou Mbàkke moom la ñu dalal tey euh, fii ci euh, Zik Feeling Live ci Sen TV ci Zik FM ci ñaari page yi nga xam ne mooy page officielle bu Sen TV ak bu Zik FM ñu fàttali leen tamit bëccëgu tey noonu la ñu ànd ak Sénico mi nga xam ne moo ñu indil meew mii di meewum alib nekk na meew moo xam ne meewum nag piir la set na na neex na bëri na vitamine am na vitamine A B D E am na calcium am na zinc soo ko wayalee dina mën a dem ci laax ruy fondeek caakere waaye tamit xëdd yi ak ndog yi mën na ca mi ngi noonu kon lagg leen jënd ko ci marché yi grande surface yi boutique yi fu ngeen dem da ngeen koy am ay ca yéen ñi nekk ci page officielle bu Sen TV ak bu Zik FM faw ñu euh, jël ci quelques internet nuyu leen fàttali leen ni dee leen commenter waaye bu ngeen di commenter dee leen bind seen numéro téléphone te di ko partager su boobaa mën ngeen am chance ñu jël leen ci jox leen li nga xam ne mooy seen xëdd ndogu ñu jox leen seen njëgu ngalax ñu ngi nuyu baax a baax Mouhamed jaw ñu ngi lay kontaane jaw Farak Nder Rama bu Salihat ñu ngi lay bëggee baax a baax di kontaan ci Jama Thiam waaye tamit kii di euh, doomu euh, SR Salihu Serigne Salihu ñu ngi bëgg baax a baax Mortala pap Maguette Fall di kontaan tamit ci ndey job jërëjëf ndey Anta Fall ndey Anta tal ñu ngi lay kontaanee Nogoy Samb ñoo ñu ngi ci page officielle bu saint TV ñu ci nuyu baax a baax Bokar Ngom Moussa Moussa ñu ngi lay nuyu mbay Gueye di kontaan ci Antiche Darmanko Cheikh Mahtou euh, Cheikh Mahfou Sow ñu ngi lay bëgg baax a baax ñooñu ñu ngi ci page officielle bu saint TV continuer len di ko partager. continuer leen di yónnee ay kër continuer leen di commenter waaye tamit di bàyyi seen i numéro téléphone ñu man kaa këf jox leen seen ndogu xëdd mbaa ñu jox leen tamit seen euh, sucre score mbaa ñu jox leen tamit seen njëgu ngalax ñu dem ci page officielle bu Zik FM ñooy ñu ngi fa connecté wu internet yi fa nekk ñu ngi leen nuyu baaxa baax ñoom Kumba Samba jërëjëf ñu ngi nuyu Sophie Diouf euh, Makali MB di kontaan ci euh, Ndike Ngom jërëjëf Momi Niang ñu ngi kontaan ci Fatou Diakhaté ñu ngi kontaan ci page internet bu Zik FM jërëjëfatee Makhtar Diop e, Jegan jox ñu ngi lay bëggee taalibe Serigne Saliou bi ñu ngi koy bëggee kër ya bëri na sum laay jërëjëf ñu ngi kontaan ci ñi nga xam ñoo nekkee ci page officielle bu Zik FM ak Sen TV Mouhamed Niang mhm. gis ne ba ñu nee la lan la ñuy ubbee nga ne nañu ubbee e, Serigne Cheikh lu tax loolu waaw ndeysaan Serigne Cheikh Cheikh day kenn ci ñun mhm. di Serigne Saliou doon na way juróom wu tedd wa mhm. ci saayir ak ci baatin wallaay mate ko sëkk nag mhm. euh, sëriñ saaliw sekkereem bi nga xam ni bi ma ko defee ci saa si nit ñi jaaxle xamatuñu fu ñu jëm ndax miineel gi ñu ko miinoon mhm. jaam ñi xamuñu woon kenn ku dul moom dëgg ay leeram sax miinuñu leen woon waaye bi ñu nee nees mu tok toogaayam bu sel bi fatali ñep way juróom wax hmm. serigne Cheikh ku namoon saliw Saliou boo mom mandi tubar fakkal wallahi ndeysaan ci donno ko ci hmm. Donno liggéey donn ci tarbiya hmm. ci yar nit Dello ko ci sunu borom deug la waye nak Cheikh ñu ak mom daje bu neex ndax ñun bi ñu nekk ci daara ji di tarbiwu mhm. miinuñu ko won lool ndax serigne saliw mo baax won di yar nonu ay njabootam deug la daanaka donga yi ki ñu gënoon min ci doomi serigne saliw yi mooy sëriñ Moustapha saaliw ñu ñaanal mu yag fi mhm. te li ko gi mu won serigne bi ci kërëm gi deug la waye yeneen njaboot ji mhm. yu ci bari ñu leen won wallaay ndeysaan man nekk na ci daara ji ba joggi fi serigne Cheikh turam rek lay deg wallaay ndeysaan ginaaw ba nak Bima sa borom yobé fi ma mom, may dox ba dajeek moom hmm ne ma la serigne Moussa Ka waxone serigne bu mag bi dana la ko wax mhm. ndax xam nga lu serigne Moussa Ka waxone serigne mag bi banako dedet muy Moussa Ka won sabora waral Moussa lamagn wo mel lem suy wax jinne ak rap ñepp da di gëm mu ne ma wolof biyaarama yam lu juk ngir rasulaay batin ba saf xorom waaye xam nga lu mu ca teg. lu mu ca teg lu jug ngir Serigne Saliou baatin ba saf xorom. loolu da nga ko way. mu ne ma. Mhm. fasal ci sab xol ak ci sa yéene ne lii ngay def liggéeyal Serigne Touba la ndax sëriñ tubaa kenn ku ne ca la nga mën ca loolu la lay liggéey loolu. dégg naa dëgg. ba ma ko waxee. Mhm. laa jàjju laa gën a yeesaat daan nañu dégg Mouhamed Niang. waaye nag gën dégg Mouhamed Niang ngir kàddam woowee xamoon naa ni li may def liggéeyal Serigne Touba la <laughs> ndax sunu jàmbaar ji jaamu Serigne saliw bi Cheikh betu Thioune nga xam ne tey ku xam Serigne saliw hmm. yang ko xame ci ndimbalam ak ci taw wallahi deug la ndax limay wax ci way wi nan hmm. ni la gañi darom be xayam ga muy tok yow nga ñaw ni moom ru yi Cheikh Saliou Cheikh bi yow Serigne saliw sa and ak moom kenn masta ande ni teral ba sa jaam bi nga ñawul murid yi ñu won jëmam ji bi mo la xale yee xel yi Cheikh Saliou Cheikh bi yow Serigne Saliou sa ànd ak moom kenn mësta àndee ni teral ko sab jaar Serigne Touba fi daan jël waaju tekkiwul taal gaa ñi coow mu jollal mooma Cheikh Saliou Cheikh bi yow Serigne Saliou sa ànd ak moom kenn mësta àndee ni teral ko sab jaar taarixub Serigne Mamoud Mbeg njegere dul fay Serigne Touba ko may taawam te ab wuude woon Cheikh bi yow Serigne Saliou sa ànd ak moom kenn ma sàndeen yi teral ko sa jaam taarixub Serigne Mamoun mbegere dul fay Serigne Touba ko may taawam te ab wuude woon Cheikh bi yow Serigne Saliou sa ànd ak moom kenn ma sàndeen yi teral ko sa jaam yàlla ay mbiram moo weesu askan ak gi xàmmewul tëgg ki géer moo ma Cheikh Saliou Cheikh bi yow Serigne Saliou sa ànd ak moom kenn masta ànde ni daral ko sa jaam waaw war nanu jaajëf Serigne Sall sang bi yaanu may sa leer tax nu am aal sang bi réerarun tëruuru noo ràggaloonu sang bi soppi nga te sol nga noo yàqal loonu sang bi yaay réparé ru yi yaay dépanné xel yi yaay électricien bi leeral nga xol yee yaay réparé ru yi xel yi yaay électricien bi leeral nga xol yee ah, ko ngeen mujj waaw moom daal li ma doon wax Euh, ni ma koy waxee ci woy wi. wallaay ndeysaan. nga xam ni Serigne Saliou. wallaay. ci melaw kaanam. Mm-hmm. nga xam ni ku yàlla mës a yabal. ci mm-hmm. àddina wallaay ndeysaan. Euh, ngay insaanul kaamil. Mm-hmm. dana am insaanul xaddim bu nekk ci sawet wallaay dëgg la. di la wane. dëgg la ndax ñoom bu ñu yegsee du ñu mën a wax seen bopp. waaye danañ lijjanti ba ku leen feeñal. dëgg la dëgg Serigne Saliou foofu la jaar ak Cheikh Béthio. wallaay ndeysaan. ñu ngi xamal waa Zik ci kanam tuuti ñoom dañuy daal di dem def journal waa Zik mais ñun dañuy continuer ci page officielle bu Zik FM dañuy continuer tamit ci page officielle bu Sen TV dañuy continuer tamit en direct ci Sen TV ñoom bu ñu defee journal ba pare dañuy fekkaat ci direct bi su ko defee kon yéen ñi nga xam ne jamono ji yéen ñuy déglu ci Zik FM maanaam 89.7. man ngeen gaawantu gaaw dem ci page officielle bu Zik FM wala page officielle bu Sen TV ni ngeen cee demee mooy da ngay dem ci Facebook bi nga tàppe Zik FM 89.7 euh, Zik FM collé 89.7 officiel wala nga dem ci Facebook bi nga bind Sen TV officiel di nga gis suñu page nga daal di dugg euh, commencé seetaan waaye tamit commencé partagé mi ngi noonu bëccëgu tey. noonu la ñu àndee ak umu groupe umu express mi nga xam ni daf ñu wàññil ay njëgam indil ñu promo ramadan bi tax ñu mën caa jënd lépp loo xam ni xeetoon ak wàllu électronique électroménager ñu koy soxla dañu wàññil njëgle ba mu mel na maye kon profito leen ngeen daw jënd ca euh, ci euh, internet bi nga xam ne moom moo di 3w point umu groupe wala umu express point comme su ko defee ngeen mën a jënd ñu livrer leen ko fa ngeen nekk njëgli nag wàññi nañ ko Tu vois l'électronique électroménager bu ñu fofu euh Mohamed. Mhm. dañuy daal di ci euh, way wi nga Serigne fallu mhm. mu way wo xamni bi mu génné réew mi dañ ko bëgg way wu way wu Oui, way Cheikh way Oui, way wi waral. Uh-huh. Serigne uh-huh. koy ñaanal mu fi uh-huh. fekk euh, ñu am ndax sunu jur yu tedd yi sunu jëwriñ yooyu sunu kilifa yooyu nga xam ni ñu daan woyal Serigne Touba ci yoon yi nu jaar rek la nu fas jaar. Mm-hmm. donte mënuñoo dab seeni jéego. wallaay mooy fexe ba njabootu Serigne tubaa kenn ku ci ne. Mm-hmm. li nga jëfal sunu borom ñu wax ko. wallaay dëgg la. bi ma ñëwee ànd ak doomam ju tedd ju ñuy wax sëñ Abo Mbacke. Mm-hmm. di doomi sëñ Mourtala Falilou muy sama wëllëre. yóbbu ci way juróom bu tedd woowu. ma siyaare ko mhm. bi ma ko siyaaree woyal ko sëriñ saaliw mbàkke bi mu déggee way yi ma woy sëriñ saaliw ak wolofal mhm. moom sëñ murtala falilu mu ne ma nag dama bëgg nga bàkk sëñ fallu laa ko sëñ fallu waaw maanaam woy damay dama bëgg a leeral àdduna sépp ginnaaw mbirum baatin mi nga xam ni am na ci te du lépp lañuy wax dëgg la waaye saayir si Serigne Mourtala mu Serigne Fallou. <laughs> moo ne ma woyal Serigne Fallou. Serigne Mourtala mu Serigne Fallou moo la jox ndigalu nga woy Serigne Fallou. moo jox ndigalu ma woy Serigne fàllu tabaarkalla ba noppi ne ma nag bis boo woyee Serigne Fallou. Mm-hmm. da ngay yëg ni Serigne fàllu wuy si na la. daan ni ma nag duma la wax ban bis waaye danaa la bett danaa la gane si. Mm-hmm. ba ma fa jógee laa ne ko Mbàkke danaa woy sëñ fàll woy wu ko nit mësta woy ci àddina <laughs> moo taxit woy nga ko woy wu kenn mësta dégg <laughs> yàlla xam na ko yàlla xam na ko <laughs> mais woy woy wi gëstu gi moo moom moo njëkk doy wax gëstu bi mm-hmm. Mm-hmm. maanaam kàggug woy wi mm-hmm. eh, mbind mi ñaata fan la la def wala ñaata weer wala ñaata at waaw man nag Cheikh yàlla dafa maa dimbali ndax li ñuy wax sëriñ tubaa ku mu liggéeyloo moo lay jox outils yi ngay liggéeyee dëgg la way ci benn fan laa koy bind. ci benn fan laa koy arrangé ci benn fan laay teg lépp. tubaar fakkal la ak may la. waaw loolu nag moom ak jagle rek la ndax bu ñu koy wax léeg-léeg dañuy bëgg di ci insister ndax dañ ci sant suñu borom. Mhm. ndax boo xoolee jamono jii ñu toll. maanaam ba ci sunu mbokk woykat yi. Mhm. nga xam ne macha allah ñëpp di ay révélation li tax ñuy mën a dellu ginnaaw ba mën a sant Serigne Saliou mooy Momet ñaa doo ko dégg mukk muy woy ay woy yoo xam ne woyu jàmbur la te saa bu génnee def it dégg naa te moo ne booy xool révélation yi feeñ yépp waxuma li ñuy def baaxul waaye ak soññe it laa ci jublu ndax nit dafa war a bàyyi œuvre ba bu fi jógee ñu ne lii moo ko moomal boppam dégg dégg naa dëgg mais tey toll nañ jamono joo xam ne ku bëgg a feeñ faw nga woy woyu jàmbur pour bëgg a feeñ yoon nag moo te loolu ñu ngi koy def defe ne lu neex la mais du œuvre boo fiy bàyyi ëllëg nit dafa war a liggéey liggéeyam ba boo fi jugee ëllëg ñu ciy topp di ko roy te loolu li la koy may mooy inspiration di xalaat di woyal sa bopp dégg naa dëgg waaw loolu nag moo tax waaye nag du suñu njàmbaar mhm. naam ak góor góorgóorlu ngi ci ndax góorgóorlu gi mooy li may wax ndax nit loo bëgg dalaa war a jaral dégg naa dëgg waaw boo nee dangaa jug ngir way nekk sa métier dangaa war a jug way nekk sa métier way nag bu nekkee sa métier mhm. dangay xalaat créer di bind. Mm-hmm. ndax kat li suñu borom yor du jeex te jàmm ñi rek te baat bu neex boo ko yoree. Mm-hmm. am nga lépp. wallaay dëgg la boo góorgóor rek suñu borom ñëw. dégg naa dëgg. barki Serigne yi te puis xam nga xam nga réew mi ndeysaan léegi dañoo baaxee mel ni mbir réew mi da ngay gis koo xamante ni si góorlu na yàlla créé na ko. Mm-hmm. waaye tamit mu def jëmbat ak pas-pas. parce que yàlla mooy mooy créé doomi aadama ji. def li nekk ci moom mais nit ki moo koy yeggale ak góorgóorloo. nit ki day góorgóorlu góorgóorlu ba nekk Cheikh Sarr. Mhm. ci boppam. Mhm. waaye faw nga gis ay nit yu ñëw créer Cheikh Sarr numéro un numéro deux. Mhm. numéro trois numéro quatre. dëgg la numéro cinq. dëgg la ba pare sax di xëccoog yow Cheikh Sarr. waaw loolu da ngay gis da ngay gis benn waykat boo xam ni. gars yi dañuy jóg nekk ci kawam. comme supposons boo xoolee Akassa. Akassa Samb. da ngay gis Akassa. yu bari Cheikh Akassa. waaw Muniru Akassa Mbay Akassa. Euh, ju ju Jumbori Akassa. Fatou Akassa Muniru Akassa. waa mais est-ce que yow mu niru ak saa boobu doo jéem a créer sa bopp. Mm-hmm. ginnaaw bi la yàlla mayee xel. Mm-hmm. nga war ci xalaat. Mm-hmm. xel ku ci mu xët. boole ko la nga koy booleel xamal ko sa askan. nga jéem a au moins gëm sa bopp. dëgg la mooy gëm sa bopp gi ndax yàlla teral na la ba pare. waaye faaw nga def Mohamed ñaa un Mohamed ñaa deux Mohamed ñaa trois dem sax. ba nit ñi di la woo Mouhamed Niang de nga dem ba gëm yow yaay Mouhamed oh, iya. Niang dëgg la ba sax di diiroog mbagg Mouhamed Niang waaye dëgg la dama ni la tamit loolu mu jëmetti dama ne Cheikh Cheikh sar Cheikh sar la mhm. ak sa ak sa la kenn ku ci ne sa jëmmi bopp nga dégg nit nak mën ngay def lu baax ba ñu la roy mhm. waaye nit boo koy roy bañ na la acam mokkal nga demal beri sa yëfi bopp dégg naa dëgg yaa ngi dégg mhm. ndax li koy def mooy gis nga li li nga wax nii li koy def mooy. Mhm. da ngay gis jànkat boo xam ni day roy akasa programme ba mu ne xëy na kenn woowu ko ca waaye akasa moo fa war a ñëw. Mhm. ñoo ngi koy siyaare bu baax sunu sunu sunu sang woowu waaw te tey tey sax moo nekk ganu euh, grand plateau. macha allah tey tey akasa Samb moo nekk ganu plateau grand plateau waaye tamit ki nga xam ne mooy soxna. Euh, Ndeye Khady Niang mhm. bu suñu baay Ablaye Niang mhm. moom it mooy doon ganu grand plateau sunu xarit sunu wëlëree waaw tey tey tey grand plateau dina neex dana neex waaw vingt et une heures jàpp leen ko ci Sen TV insha allah bu dee danga nga da nekk foofu di fa roy akasa mhm. nga yëg ni akasa moo fay ñëw te mu wóor na li ngay def la akasa di def da ngay dem te boo demee doo demaale di nga ci boolee ay xunt <laughs> yaa ngi dégg. mbaa nga jot ay marto. waaw lolou moy indi li ngay wax motax nit wara amal bopam wara defal bopam. Mhm. kon lolou ben parti la buñ ci doon soññee waaye mhm. ginaaw bi Serigne saliw defé ndimbalam ak tawfiixam ci man. Mhm. Cheikh man suma bëggé bindu wae. way damay juk ci guddi damay ba lepp ba lepp dal. ba suuf sedd li mag ñu wax bu suuf sedd ba suuf sedd ma daal di commencé bind sama way fit nit ñi di nelawé fofu lay xalaatee. dëgg la loolu nag noflaay mayewu ko yaa ngi dégg. Mm-hmm. lay mayewul lolu ndax nelaw ku ne xamni dafa neex. ci serafal nee na nit ta wax mën ta jëf baraw la nga bëgg wax ba dab ko. mi ngi noonu lolu motax ginaaw ginnaaw bi ñu amee ndimbalul suñu borom. dañuy góorgóorlu. Mhm. ndax bind donte inspiration yomb bu la yombee it bind yombul. dëgg la. xalaat tem ne tey temu sàngam laay bind. imaginel moo mel ñang mu sëriñ Saliou Serigne Saliou rek la ñu mës a xam mu koy way mu jékki-jékki ne day way sëñ Fallou ñu ne waa kii lan la war a wax ci sëñ Fallou boo amul xam-xam boo doonul gëstukat nooy waye sëñ Fallou. moo taxit way nga ko de. way wi de way wi de tubaar fa kàll la way nga ko te way wi neex na li ñuy def nag mooy internet yi. gën leen ko partagé ci barke Serigne Fallou Mbacke gën leen ko partagé kër yi gën a bëri waaye tamit ngeen di commenté day def seen numéro téléphone ndax waxtu nekk mën nañ leen këf daal leen jox seen njëgu xëdd ndogu mbaa ñu jox leen seen ngalax euh, Mohamed. Mhm. ay ñu ñëw ci euh, Serigne Fallou Mbacke bi. waaw kii ku ko yaakaar maa ngi koy mooy colonel Ousmane Faye borom 19 see di taalibi suñ Fàllu di taalibi suñ Abo waaw waaw xiiwal yu neexul ba neexul daal soo bëggee dégg-dégg en tout cas soo bëggee dégg dégg euh, way yi neex na uh-huh. waaye tor fa kàlla bàkk bi kawe na waaw bàkk bi kawe na torop bàkk bi waaw may sa Mbaye la. fii fi moom wane nga wane nga dëgg-dëgg ngéwal waaw waaw ah, ngéwal gi feeñ na ci de. feeñ na ci lool. waaw waaw xam nga ne sëñ Fallou mel noonu nag. wallaay wallaay. ba bëri baatin bari xorom. nokkos gi jaar na yoon. <laughs> tuwaar fakkal euh, niñ ko dijjat jaar na yoon. waaw <laughs> barki démb laa la la sama benn xarit di expliqué ne sëriñ Fallou ni mu ni mu meloo woon ni mu meloo woon ak baay Fall yi. Mhm. nee dégg naa dafa mus a nekk toog xawoon na nekk ci liggéey bi jékki-jékki. am ko ne waaye waaye Baye Fall yi Baye Fall yi génn leen may sëñ bi dallu mhm. dégg naa sëñ Fall du njëkkante ñoom bunt bi pour daw génn moom it <laughs> yi ne ko sëñ bi mu ne ah dañuy Baye Fall yi génn leen may daw njëkkante <laughs> la ko wax kenn gënumaa ne ku Baye Fall ndeysaan moo tax yal na yàlla fayal nu ko te yàlla yokk ay leeram amiin euh, ñu xool page officielle bu Sen TV su ko defee ñu nuyu euh, tubaar fakkal internet yi nga xam ne ñu ngi foofu ci page officielle bu Sen TV Euh, gaa yaa ngi commenté naan xol yaa ngi seddee fu nekk. kër yaa ngi bëri. Mhm. waaye gaa yaa ngi dugal tamit numéro téléphone yi ñu ngi nuyu. internet yi ku ci mel ne Astou Diop Ndiaye ñu ngi tamit Abdoulahad Fall ñu ngi lay nuyu. ñu ngi nuyu tamit euh, Mati Ndiaye Eva euh, Fa ñu ngi lay nuyu baax a baax Abdou Diallo ñu ngi koy nuyu. di kontaan tamit ci Pape Niang waaye merci beaucoup Ndeye Niang ñu ngi kontaan tamit ci faatu Sarr ak Khady Soumaré. Zoline wala boog lion ñu ngi lay bëgg baax a baax soxna Diop ñu ngi lay nuyu ak Diop Diop ñoo ñu ngi ci page officielle bu euh, Sen TV dañuy dem ci euh, page officielle bu Zik FM ñu daal di nuyu euh, internet fa nekk Sidaat mi ngi mi ñuy wétali ko ba bitim mi Sidaat waaw Sidaat Sidaat mi ngi ñuy wétali ko ba bitim réew. Sidaat Thiam Sidaat Thiam bi mu gisee affiche bi démb rek daal ni ca <laughs> dëkk bi dana yëngu de <laughs> xam naa nag moom. man dukkatam daf may daane. ndaysan bu nekkon fi ba tal ñu ko danoonu neex. sunu xarit sunu wëlëree di nit ku baax ko xamni hmm. lolu ngay wax ci tam yoyu fu fu Cheikh Béthio musan toog. Hmm. bu dukkatee Cheikh Béthio day gis bopam ci mom deug la. barki Serigne du ko tam ben la won waaw muy muy nit ku baax di sama xarit. ak neex. waaw di kon nak <laughs> man moy sama wétal sidat sidat sidat sidat cham moy sama wétal mom sama xarit la. dañuy déggante lu bëree bëri bëri. ñu ngi koy nuyu di waa Londres yëpp. Mm-hmm. waaw di nuyu mbokki taalibe yëpp. mboole seen ku ne bitim réew di ñu bàyyi xel. Mm-hmm. ñoo ngi lay siyaar bu baax. walaay ndeysaan ñu ñëwaat ci euh, page officielle bu ah sama jarbaat dugg si nag moomoo ñu ngi leen nuyu baax a baax ci sama jarbaat la. moom ah xam nga ko. bu baax sama jarbaat la. <laughs> moo ñuy ah. waay waay fa moom moo ñuy moom moo ñuy moom moo ñuy wéttali kaay. ndeysaan moom moo ñuy wéttali guddi gi. mu mm. minuit ba ba ba ba cinq heures du matin. Ah, minuit ba cinq heures du matin célibataire rek. ku baax ku baax te yaru te mën li muy def. dafa mel tey yaa war a ñëw 14h 17h ah. 14h 17h. waaw kii na ko baax la sama xarit la Mouhamed. Mouhamed waaw mhm. moom. Mhm. mais muy koo xamante ni euh, Tidiane Mouride Xaadir Laayeen ñëpp dañu koy bége. Mhm. Euh, la preuve tey bi ma ko indee Thiès ñëpp dañu ci génn ñi nga xamante ni man xam naa ne ay tiijaan lañu mais dañu génn ndax Mouhamed moom li muy def wax dëgg yàlla mooy loolu. mais kii tam Mouhamed kii sama nijaay la. tey bu ñu demee ba ba bëgg métier mi. bu léeg-léeg alam na ko gërëmee amee cooy ah, loolu lañ doon wax léegi waaw ah, ndax kii moom wax dëgg yàlla moo ñu def sama tournée naa man tudduma euh, mm. Dj Momo Mouhamed laa tudd waaye bu ci Dj amee rek yàlla ak moom macha allah encore une fois ñu koy ñaanal wax Sénégal ngeen ñaanal nu parce que kii moom ku ko ñaanal mooy man nga ñaanal <laughs> li sa sang bi doon wax mooy euh, ki la tax nga gën ki nga wartoon gën des koy jaamu ndax sang la jërëjëf macha allah macha allah léegi-léegi lay doon doo nuyu waa Thiès waa ngi leen di bëgg commencé nga fàtte waa Thiès de waa non yàlla tere péexu Dakar bi dugal nga bëgg a fàtte ma leen mos a ndax waxtu yi may bàyyi xel léegi-léegi eh. tons bu paree maa ngi ñëw 14 heures 17 heures ci 89 point 7 rajo bi ti gën a neex <laughs> ba su fay bor nag la leble neexoon. kii woonu jàngal tey dinañ ñëw ci kanam. kii mooy Ousseynou Mangane. waa léegi ñëpp waa Thiès lañu. léegi doon nuyu waa waa Ñic. <laughs> waa waa Ñic waa Ñic maa ngi nuyu ñëpp. Eh. Kër Momar Sarr Joxoor Yaman Peneen Ndimba ñëpp maa ngi leen di nuy parce que ñun ay waalo waalo de. et dañu fier des waalo waalo quoi. déjà jaajëf Mouhamed jaajëf moom jaajëf moom bu la peexu Dakar mi jàppee ba nga hamburger yeeg sarmaay jàppale ba nga bëgg fàtte waa waalo moom du du du yomb léegi Mohamed dafa mel amana ñu ay gande waaw ah man nañu ay gande xalé yi nak ñom ñoo ne ci sama ginaaw yu neex yoy nga dégg ci ginaaw yépp ñom la wallahi ndaysan ki moy ngañ geey ngañ geey serigne saliw ñom ay dekkando momo lañ ay rakki momo lañ momo mo leen yar ngañ de dukkat na fi dukkat seenu mangan ndaysan mom tamit fan yi passé rek la def ben morceau bu bo xamni ne Sénégal gépp ñu ngi koy deglu toor fa kàll kan di ko xel ñoy ay xalé yu kan ci Ousseynou mangan waaw Modou wad mhm. momit ñom ñepp ñëpp ay waykat lañu Thiès ku ne xam na ni dëkk bu yàlla barkeel la ci wàllu aar xale yi nag euh, yaroo ci keppaaru cant gi man lii donn ko nag ndax ñoom ñëpp seeni seeni seeni cosaan ay woykat lañu mm-hmm. ñuy xale yi mën a woy fu moomee ñang ne der mm-hmm. ñoo ne ci ginnaaw gis nga fan yi yëpp noppalu wuñu dem la ñu jóge ci festival salaam bi xaw a guddee moo tax sax baat yi xaw a kii Mm-hmm. waaye ma leen di sant di leen gërëm bu baax a baax waaw faw nga ñu Les ñu nuyu internet yi nga xam ne officielle bu euh, Zik FM dañ leen di nuyu bu di ci. Euh, grave gaa grave yaa euh, grave mm-hmm. li te et puis ñaari page yëpp la instant bi ñaari page yëpp ñu ngi fonctionné ah. grave grave grave grave grave ñu ngi nuyu euh, Mbaye fay ñu ngi nuyu Kumba euh, sa euh, Samb ñu ngi nuyu tamit bu baax a baax kii di soxna maman Saliou Thiam Rama bu Salihat Dar ñu ngi lay bëggee maam Diarra Ndiaye ñu ngi nuyu bu baax a baax tamit Cheikh Moussa Seck Fall Marietou Sophie Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Aïcha Sow Ndiaye ñu ngi nuyu tamit soxna Diarra Toulaye Diop ñu ngi nuyu maam Khady Sarr ñoo ñu ngi ci page officielle bu euh, Zik FM ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax euh, léegi nag li ñu def mooy xanaa euh, Mohamed ñu bàyyiwaat la rek su ko hmm. defee nga mayaat ñu nga mayaat ñu acapella bu toog boo xam ni da nga ci ànd ak suñu gars yi rek ay ca mi ngi noonu waaw waaw mhm. dikkal أبقى لنا بفضله صالحا باخل لنا جاد بي صالحا أبقى سمسم أبقى سمسم في سما دري يسكن من وجهه أبقى لنا بفضله صالحا باخل لنا جاد بي صالحا أبقى زمزم زمزم في صمدري واو يسكن من وجهه أبخالنا بفضله صالحا باخ لنا جاد به صالحا أبخاو أبخاو في سما دري يسكن من وجهه أبخال سالخا خلنا جادبي سالخا أبخاه سمسم في صدري واو يصل من وجهه أبخاه مؤمنا لو هديه مباركا مسرسها فالغا أبخالنا بفضله سالخا خلنا جادبي سالخا أبخاه زمزم في gi leer na ngir jant bi salixa ah, jamono yaa ko xéewaloo ah, leer gaa ngi ah, leer gaa ngi leer gaa jubal moo weral mbiri leer ab xaalana فضله سالخا خلنا جاربي سالخا أبخاو سمسم في سمادري ويسر من وجهه سرين توبان la yàlla jox saalixa mu samp yiwu dox saalixa gore gi am ba yàlla gi murid am saaliw mi فضله سالخا لنا جانبي سالخا أرخا زمزم في سمادي ويصدر من وجهه بتيم ورا الليل والجسم براي بنجي بتيم ورا الليل والجسم براي بنجي بتيم àddina yëpp a ngeen. tey moo waral li leen. waaw wax des mbir yëpp a ngeen. ah jox naa la lépp yam ci yow. saalixa ah ku am la dootul geesu yow. saalixa ah lii lépp yow a. yaa jara wóolu Mbàkke ma way la. yaa jara te bis yooyu nu jëm waaw yaa ko keral yaa jara yaakaar ci bis yooyu nu jëm waaw waaju nu jëm xam nañ ñi deeyit yaa fa man di dara sa bis yooyal lu jëm waaw waaw wax ju dara dara dara dir ku ci bàmmeel yow ku ci bàmmeel yow lépp rama waaw dara dara daru lew sa dara lu ko ci lew ñepp ramoon dara dara daru lu dul yow sa dara biru ko ci bàmmeel yi lew ñepp ramoon dara dara lu dul yow sa dara jër ko ci bàmmeel yi lew ñépp ramoo moo way dëkk bi magal bërëb bi borom noppi na ci Tuuba ca kanam moo way dëkk bi magal bërëb bi borom noppi na ci Tuuba ca kanam yewaay garab gi meññeef mu fex mi te xel na ku ronu fi Tuuba ca kanam Tuuba yi gën gi dëkk lu leer ga fëtë tëdd te yiir àdduna bépp Touba ca kanam yàlla dàq lu ne waaw ne ju ne en Touba la barke lu ne Touba ca kanam ah dëkku tarbiya yàlla noflaay du lu ne waaw ne ju ne en Touba la barke lu ne Touba ca kanam jaamu yàlla liggéey sàmmante dëkk bee aw say maas. Touba ca kanam. boo ko gee moo raw te xee. saliwoo bilaay yaaram bile waaw waaw ajanam ke moo raw texe saliwoo waaw yaaram bile ajanam ke moo raw texe saliwoo bilaay yaaram bile waaw waaw ajanam ke moo raw texe saliwoo kaay leen ci lii andi mbalak taw fee yarul mande saali woo yaa rabbi le waaw waaw ajanam ge moo raw texe saali woo waaw jaw fal fara mbake yaa gën a neex lil wara saali woo yaa rabbi le waaw waaw ajanam ge moo raw texe saali woo waaw déglu ma ci mbiram waaw ngir nga jariñoo ci xewal yee sëriñ saali woo koy joxe waaw sëriñ saali woo koy joxe waaw ak fu mu mën a jaar loxom waaw sëriñ saali woo koy joxe waaw xam-xam yi xam nañ sama wax waaw borom jamono ñépp a wax waaw jiite fa ko kay dogale sëriñ saali wooy fale waaw sëriñ saali wooy fale waaw leer na ñi fa waaw sëriñ saali wooy fale waaw way dem yi xam nañ waaw sëriñ saali wooy fale ñi dem ak ñi demul ñépp xam waaw ku dëpp waaw ndeke moo mas a jiitu ña jiitu waaw sëriñ saali wooy jàllale waaw teewul ñu teewuloo saali wooy jàllale ñi mën a way nañ ko waaw ñi mën a daaj jàng xasida waaw ñi mën dukat waaw nuy sant tey dukat waaw waa génération Serigne Saliou waaw nuy sant tey dukat <laughs> ndaanaan daal mënut a ànd ak kenn ku dul ay ndaanaan <laughs> gaa yi nga àndal day waaye jar na ko suñu dënn na rëcc. waaw waaw suñu dënn na rëcc. dënn yi xanaa waaw ndax ñun ñun ñun ñun ñun lu njaboot ak Serigne Serigne Touba buñ ko wax dootu ñaan ak suñu soxla mooy suñu dënn yi na rëcc. maa la neex na tool fa kàll. <laughs> ah naan les meilleurs rek ay ànd. ñi nga àndal ñi c'est des macha allah te yow tu es le macha allah yàlla yal yàlla gën a barkeel. amiin euh, Mohamed léegi nag dañuy dañuy dem ci page officielle bu Zik FM. Mm-hmm. wala bu Sen TV rek ñu tànn fa eh, benn internet daal di koy jox eh, xëddam mbaa ndogom eh, ñu xool kenn ñu fàttali leen tey incha allah suñu gan ci grand plateau Serigne Akassa Samb la mooy doon suñu gan ci grand plateau naka ñëpp waajal à partir de vingt une heures soxna Ndeye Khady Niang soxna kii nu mu tuddati kii Niang Ndey Fatou soxna Ndey Fatou ñang mhm. bu suñu baye Abdoulaye ñang momit dana doon suñu gantay ji ci Grand Plateau. kon na ko ñëpp waajal à partir de 21h30 trente ngeen jàpp Sen TV euh, ak ci page officielle bu Sen TV ñu mëna a euh, ci euh, goudi gi nga xamni goudi guddik leer la goudi go xamni goudi Serigne Bamba la waaye ay khassidam lañ ci jang te kenn ku re warna na caa barkelu baye len ci xel. ñu dem ci page officielle bu Sen TV ñu tan benn internet dal di koy may. Euh, njëgu xëddam mbaa njëgu ndogom waaw kii mi ngi tudd xaru euh, ñu xool waaw ñu dem ñu ñu xool Babacar Mbeng waaw Babacar Mbeng la tànn Babacar Mbeng xaral ma capturé ko capturé naa ko Babacar Mbeng numéro téléphone am 76 la Babacar Mbeng anamu wala ci la ma di Babacar Mbengue moom rëcc na moom xaar ma war ko ci biir gaañ Babacar xanaa xanaa bi nga xëyee sarxe woon ak it Babacar Mbengue <laughs> xaar ma xool Babacar maa ngi lay war ci biir gaañi de waaw comme Babacar rëcc na ñu ñu capturé pour gagner du temps ñu ñëw ci jaañ jaañ waaw jaañ jaañ jël nañu jaañ jaañ comme Babacar Mbengue rëcc nañu jël nañu jaañ jaañ Diagne Diagne numéro téléphone 77 le 962 11 ak la ca voilà mi ngi noonu Zik FM ànd TV ànd na ak internet yi ñu daal di 15000 francs ñetti junni lañ koy yónnee euh, ngir mu waajal ci li nga xam mom modi moo di euh, xëddam moom mi ngi ci page officielle bu euh, Sen TV fa la nek continuer len di partager continuer len tamit di bind seni commentaires te bu ngeen di commenté ngeen bàyyiwaay ci xel bind seen numéro téléphone beneen bi ci tege nag am na ay arnaqueur yoo xam ni euh, ñu ngi duggaale ci page officielle yi di récupérer ay numéro nit di leen wax naan euh, Sen TV wala Zik FM war na la yónnee cinquante mille faaw nga yónnee ñu nangam wala boog demal ci euh, point bi la gën a jege nga jox ñu gérant bi fa nekk ñun D-Media duñ doxalee noonu D-Media du doxalee noonu te mosul doxalee noonu li ñuy def mooy bu ñu jëlee sa numéro toogal sa kër rek sa message dina sonné ci xaalis bi ñu la wax di nga ko jot donc képp ku jël seen numéro téléphone ci page bi naan la Sen TV wala D-Media wala Zik FM naan la Cheikh Sarr wala Alima wala keneen ak keneen ku mu ci mën a doon ni la yónnee nañ la nangam faaw nga dem ci point nangam kooku dalay nax euh, ñun bu ñu lay may bu ñu jëlee sa numéro fi nga toog ngay toog nga jot sa xaalis baa leen ci xel bu baax a baax noonu la ñu àndee ak Free Money euh, Free Money nag la mu ñu indil. dafa dàq neex manam kep ko xamni yaangi euh utiliser li nga Free application wala nga am carte bancaire bu firi Money di ci vous di ci jot sa xaliss man nga xey bokku ci manam 200 code oyofal yi joxe yi am plateforme bi di Free nga connexion bu tollu ci francs moy bu journée bi man ñu par jeudi chaque jeudi dañu tànn lu bëri bëri ci ay suñu clients jox leen enveloppe bu vingt cinq mille Mohamed Niang mu Serigne Saliou Mbacké mooy suñu gan tey euh, réew mi kontaan nañu gaa yaa ngi commenté eh, gaa yaa ngi réew mi yëngu na ah man bu la neexee mën nga nuyu sa quelque xarit waaw maa ngi nuyu sama xarit Mortala Fall Sandaga Mortala mi ngi bàyyi xel actuellement nit ku tedd ku baax ku baax nit koo xam ni Serigne Saliou rek la bëgg. ku tàmbalee ci zéro ba egg fu mu egg. wallaay wallaay. maanaam dafa tàmbalee ci zéro ba euro. waaw moom dafa moom rek. jar na moom rek doy na royukaay. waaw waaw euh, jeunesse bi mën nañu roy ci moom. waaw moo tax la faa xam ne ci marché ambulant nga commencé. wallaay ndeysaan. dem tey ba bu ñuy wax wàllu ci wàllu wi muy yëngu. Mm-hmm. bu ñuy tudd ci Sénégal moom la ñuy tudd. boo demee Sandaga bëgg dàll bu rafet. Mm-hmm. ba nga bëgg ay habitement yu baax mhm. ci moom ngay dem jomam rek ak mhm. fulam ak faydaam moo ko may wallahi ndeysaan morta la ñoo ngi lay nuyu waaye nag euh, émission bi tey dama koy may taalibeb Serigne saliw sama mag sama xarit euh, ministre Antoine diom Antoine diom Antoine diom ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur ñu ngi koy nuyu baax baax ku baax la ku am yar di sama mag di sama xarit mhm. di taalibeb Serigne Cheikh saliw di nit ku tedd sama grand théâtre bi passé bi mu ci ñëwee rek grand théâtre bi daa daa di farankulaay wallaay ndeysaan muy nit koo xam ni daa ñëw ak jëmmam wala daa ñëw ak jëmmam ak baatinamam léppam bi mu ñëwee rek bis bi daa daa di neex ndeysaan muy nit koo xam ni lu mu dégg nit di tudd Serigne Saliou mhm. ma ca wallaay ndeysaan koy ñaanal bu baax Serigne Touba yokk ay teraangaam te yokk ay garatam wallaay ndeysaan maa ngi ciy profité di nuyu Fifi mhm. jigéenam bu baax boobu ak mboole seen ku nekk ci ginnaawam di ko jàppale. wallaay ndeysaan maa ngi nuyu. soxna Aida mu Serigne Saliou ca parcelle borom social bi. di nit ku baax di ndeyu génération Serigne Saliou maa ngi nuyu waa génération Serigne Saliou bépp. ñu ngi ñu ngi nuyu suñu benn jigéen tamit. waaw mhm. ah, waaw bismillah. soxna Marème madame Fall. Mhm. nekk ca port moom it di jigéen ju mën góor. Mhm. di sunu xarit dañu jàppale. waaye soxna Aram aussi madame Fall ñoo ngi koy nuyu bu baax. ah di nit ku baax moom it Cheikh dafa dafa bari ñoo xam ni. wallaay ndeysaan. ndeysaan dañu lay bëgg rek te sëñ Saliou rek tax. wallaay dëgg la lu ñu lu ñu yor nag bokk kook yow. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. léeg-léeg da ngay toog sax sa xel di xaw a fàtte. wallaay waaye lu mel nii nga xam ni euh, di nga am occasion wu. Mhm. ndax émission bi Cheikh daan neex te àdduna sépp koy bàyyi xel. yii quatre plateformes. waa ji yónni na ma message benn waa ji yónni na ma message léegi na ma mère émission. ah la ci parce que émission bo ci Sénégal ba Sénégal daj moy ben émission ci Sénégal gi mhm. buy daw ci radio direct di daw ci télé direct di daw ci plateforme direct chaque jour. Je allah rek ko page officielle bu Sen TV Je ngi connecté wu. bo xolé page officielle bu Zik FM ngi connecté wu bo ñaari waaw nga ñëwaat nag ci tele bi gaa yi ngi jàkkaarloog télé bi nga ñëw ci rajo bi gaa yi jàkkaarloog rajo bi donc mi ngi noonu ñu ngi nuyu suñu benn jigéen boo xam ne moom mi mhm. ba Dubaay ndeysaan di jigéen du jàmbaare ju ju fonk sax waaw da ko yëg rek kontaan Anta Dia euh, Fabienne euh, Fabienne Lux Avenue macha allah mi ngi mi ngi seetaan jamono ji en direct ma nga ba Dubaay di ñu weccali ko. naa ngi koy siyaare bu baax waaw ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu baax a baax. di ci tamit di nuyu waa Dubaay gépp mhm. ndax noonu lañ fa bëree ay soppe. walaay ndeysaan maa ngi sama xel ngi dem ci Anta Dia borom Dubaay. Anta Dia Dubaay. waaw moom it nit ku baax. ah mhm. nit koo xam ni namatuma jasneer ndax moom. ndeysaan. waaw noo ngi ñoo ngi am mbégte nag. di mhm. nuyu sunu jigéen bu baax boobu Mami Jum. mami Jum, borom Jador buti ak gën bax baax mbokkum yaayu xalifa mbergan li fa ku ci mbokkum yaayu mami Jum ak bax nit ku bax waye nak cheikh mhm. dama and ak jëm ju tedd bu mhm. bax di Modou gay héritage ak bax ko xamni euh, Serigne saliw moma bolé ak mom wallahi Modou gay héritage euh, dafa am lo xamni sax lepp mënuñu ko wax deug la waye kuma seen may and ak mom sax mën nga yakane ki kat ay mbub ay mbub lañu andé àndee amna leen luñu andé du loolu té bama juggé kat am ci yene am ci mbebet mhm. bi ma ñëwee wax ko ko daf ma ci tek ci yoon. Modou Gueye héritage dama bagal wax mom xam nako deug la muy nit ku bax nit ku yalla baxal cheikh koor gi. Mhm. lepp lu fi nit gis ma diko ko mom moom mhm. ko jox. wala ndeysaan daf men sa wajé rek. waaw Modou Faye mosul couture. waaw muy nit ku bax ñu diko ñaanal suñu borom yok ko momit waaw Modou Gueye dundal waye nak suñu xel tamit day dem ci Baye Modou création. Baye Modou création mom Grand Dakar. wallahi ku bax momit momit tay la ciantam gi. Euh, ñu ngi ci woo ñëpp man incha allah bu ngoonee dinañ fa dinañ fa jàll. ndeysaan foofu ca Grand Dakar. moo duggee héritage moom ngay wax. Mhm. moomu Touare fa kàlla moom maag papaam la woon. Hmm? en 2003 ñu bokkoon benn rajo Fagro FM. Hmm? papaam doonoon góor gu baax. Mhm. gu am valeur. Mhm. gu bëgg Serigne Bamba bu jeex tàkk ci ay valeur papaam moo duggee héritage. maag papaam ñu bokkoon benn rajo. ñu nekkoon ñu ndaw mu ñu daan uuf di ñu gëmlu suñu bopp di ñu xam ne war nañu mën a egg fu nekk. waaye nga dem donc kooku ànd bi dafa yàgg. waaye noonu nga nuyoo tamit euh, ci laay nuyu tamit euh, du fey Faye Mousli Couture. Mhm. mi nga xam ne moom it lépp lu ma sol ci télé. Mhm. macha allah ak di ko sañse sax bu ma feeñul télé. la lii ma sol nii moom la. ndeysaan rafet na de nga xam ne tuwaar fa kàlla gis nga. koy def te bu tay bay dàq nag. nga ne waa bii bu tay bi. waa bi moom. bi ma war a ah, toogee bi ma war a toogee tey ci plateau ak sax waaye nga ni ba guddi ba guddi ak jàmm waaye waaye tey ni ñu amee plateau ak ak sa ak soxna. Euh, Ndeye Fatou Niang Ndeye Fatou Niang bu Baye Ablaye Niang. Mhm. noonu la ñu amee plateau tamit suba. Mhm. suba à partir de vingt une heure pile ci seen TV da am nañu face to face yu doy waar. Mhm. diggante Ketchup. mbër. ak ki nga xam ne moom moo di euh, euh, kii Mbaye nu mu tuddati. Alaaji mbay Alaaji mbay xam nga loolu face to face bu neex la. waaye diggante euh, Albury ak Njambaan. ñooñu ñoo neex. waaw ñu neex rek lañ boole. wulli dana ñëw. nga di ma. te am naa ñaari mbër yu ci war a ñëw yoo xam ne bëgguma tudd seen <laughs> mais ñaari mbër yooyu moom invité surprise la. ndeysaan suba incha allah à partir de vingt une moom it ci grand plateau waaye tey Serigne Akassa Samb la ñu dalal euh, Mouhamed Niang dañuy dem. dañuy dem ci ñu ngi nuyu baax a baax suñu rakk tamit Aziz Fall Mori. Mhm. mi ngi ñuy seetaanee ba Marseille fi mu toll nii réew mi yëngu na. non doy na waar. réew mi yëngu na de. man la. ñu def nii ci Masaalikul Jinaan. waaw waaw. ndamal jullit yaa ngi Lamine Faye Lamine Faye moom El Hadj Mbacke yu Faye. ah Lamine Faye. waaw fay Faye di suñu xarit di nit ku baax moom. Lamine Faye ku baax. di jàmbaar. wallaay di nit ku am jom. di tailleur bu mën ñaw waaw boo ko fekkee ville nga xam ni nit jom a ngi nii Lamine fay Lamine Faye nit ku baax nit koo xam ni Serigne Touba rek ko ñor muy borom xam-xam aka mën a ñaw waaye nga ni ma woy wi maa ngi ko koy may di ko may waajuram wu tedd Alaaji Mbàkke Faye suñu papa suñu xarit suñu lépp ci yoon <laughs> bismillah Massalika Ngom Lamine yaa ko moom <laughs> non tey nag moom waaye waaye na dënn yi rëcc jar na ko ma ne ko na dënn yi rëcc Sëriñ Bamba jar na lu ëpp toor fa kàll la mu daj duñ ko daj fa mu jaar duñ fa jaar buñ deewee Serigne Bamba ñuy fëgg suñu dënn yii. waaye na rëcc ak jàmm. na rëcc ak jàmm Serigne Bamba jar na ko. Eh, xam naa ne nag wax dëgg yàlla tey moom bëggoon naa. sama xarit bi daal euh, kii Sidaat Sidaat Thiam. Sidaat Thiam <laughs> bëggoon naa nga fekkee jotaay bii xam naa ni moom bis booy ñëw Sénégal da nga ma koy yëgal rek maanaam boo yëgoo ba boo see Sénégal ba dallu fi aw fan ma tëgg li jotaay bii nga xam da ngay ñëw toog fii duñu dukkatal léeg ma foog rek sama xel dem ci yow kenn du yow tor fa la euh, mais mais ñun ñu nuyuwaat internet yi. Uh-huh. yi ne ci page officielle bu si FM ndeysaan ndaysaar ma nga ngay retaan def ay këram ca suuf. xam naa ni ñuy fëggee suñu dënn yi la de de <laughs> kii nee na Oumy Samba nee na sunu kër saal baa ngi wàcc nee na yaaya ma ngay fecc lu rëy macha waaw ndeysaan umu umu Oumy Samba Oumy mu ngi ci page officielle bu Zik FM maire Ndiabi euh, maire Ndeye sa Ndiabi waaw ma ngay kontaan moom it sunu maire wallaay ndeysaan ma ngay kontaan euh, nee nee na nee na Oumy Samba nee na suñu saal baa ngi wàcc maire yëpp ngi fecc ndeysaan euh, ñu ngi nuyu bu baax a baax tamit euh, sod Ndiaye Kanji ñu ngi nuyu tamit ki nga xam ne moom moo di Saliwu ñu ngi leen nuyu bu baax a baax Maam joor ñu ngi leen nuyu page officielle bu euh, Zik FM Kumba Samba ñu ngi leen nuyu bu baax a baax kër yaa ngi bëri na kër yi bëri partage yu bëri su ko defee ñu waxtaane ko mbég ak bànneex lay doon tuwaar fa kàlla déggal loolu Faben Faben Luxe moom mi ñu wettali ko fële ca euh, Dubaay nee na a nga yëngu. <laughs> Euh, réew maa ngi yëngu moom moo Pikine nee na Pikine a ngi yëngu. Tarfa Kalla waaye tamit Ousseynou Ndiaye mi ngi kontaan bu baax a baax ñooñu ñu ngi ci page officielle bu euh, Zik FM dem ci page officielle bu Sen TV ñu nuy internautes yi nga xam ne ñoo nekk foofu ñu nuyu leen. ñu nekkee ci page officielle bu Sen TV ca lañu ndeysaan ki nga xam ne moom moo di faatu Gueye nee na nee na nee na li muy dukkat. li muy dukkat ëpp na. nga ne ma ah, waaw loolu la li muy dukkat ëpp na. Abdou Sène nee na macha allah Zik FM walaay ndeysaan walaay ndeysaan euh, Babacar Chocolat le pro moom mu ngi kontaan bu baax a baax Cheikh Sarr yaag mbay dama leen bëgg billaay barki Serigne Saliou ñu ni ñoo la raw yàlla na Serigne Saliou bokk nu bëgg ndeysaan euh, gàmmu sekk mu ne euh, billaahi na kër yi bëri waaw na kër yi bëri wax na dëgg na kër yi bëri ñu ngi kontaan ci ndeyloo cat page officielle bu euh, Sen TV ñu xool fa kenn aussi tamit daal di koy jox xëddam mbaa ndogom ci page officielle bu euh, Sen TV wala sànq bu Zik FM lañ ko jëlee woon sànq bu Zik FM lañ ko jëlee woon wala bu Sen TV voilà ah nañ jël rek jël nañ jaañ jaañ saal di euh, ñu xool kan la ñuy jël Loota Fall ñu ngi lay bëggee ndeysaan ñëpp ngi kontaan. ñëpp gi kontaan ñëpp gi kontaan sunu benn jigéen Cheikh. Uh-huh. benn ca Dubaay. waaw Fambène waa ca Dubaay Fambène waaw. Fambène laa lay wax ah, moom nga may wax moom mooy message ñii. Fambène ca Dubaay mi ngi ñuy bàyyi xel di ku baax. ku baax yàlla baaxal. wallaay ndeysaan. waaw waaye nag sañ Mouride Thioune. Mm-hmm. mu bokkal Cheikh Béthio ndey ak baay mooy wote nii. oh sëñ Mouride Thioune billaay jël ko jël ko jël ko ñàkk. sëñ Mouride. maa ngi la jël nii ci direct bi FM. waay maa ngi lay ziar bu baax a baax. ñoo ngi ngi lay ziar baax cuun. wax dëgg yàlla. nday ndeysaan. lay bu baax. ñoo lay fay ziar bi bu baax. yàlla ko a ngi lay déglu. Uh-huh. maa ngi lay bàyyi ak Cheikh Sarr mu nuyu la. waaye ñu ngi lay nuyu sanga yaram di la jox sa yéeguwaay. ndeysaan. walaay ndeysaan tey tey laajal ma ko ban yëg-yëg la am tey. sëñ Mouride sëñ Modou sëñ Modou sëñ Modou Cheikh saar nee na ban yëg-yëg nga am xaaral ma jox la ko. ah ñu ngi delloo ziar. ma ma ne yëg-yëg nga am tey. ah yëg-yëg bu waaw wallaay wallaay. Ah, ku saxal <laughs> Euh, telem bi telem bi lay wàññi rek bu wàññee tele bi rek mu neex. yëg-yëg bi day mooy yëg Serigne Saliou bu baax a baax a baax a baax. ndeysaan jërëjëf Thioune. sama xel lépp Serigne Saliou waññi. wallaay Thioune. ndeysaan ak Cheikh Béthio ndeysaan. Euh, maa ngi nii Madinatu Salaam. ñuy waajal 17 avril. loolu nga xam ne ci la Serigne bi dajawoon. ak euh, Cheikh Béthio lu mm-hmm. mm-hmm. euh, ko ciy baax di Serigne Saliou mm-hmm. xam lu ma la bëggoon a laaj xam naa télé bi lay wàññi rek bu wàññee waaw ñu ñu ngi ñaan ñu ne ñu ngi ñaan nga wàññi sa télé bi ah waaw dafa am laaj bu ma la bëggoon a laaj rek sëñ Murit xam naa damay taxaw ci palaasu Cheikh Sarr. waaw. Hmm. mooy jamono ji nga xam ni moom la Cheikh Béthio daje woon ak Serigne Saliou foofu ca Taset. waaw. ñu bëggoon a xam loolu ban jamono la woon ak wan waxtu la tombé loon noor la wala nawet la woon. waaw Serigne Saliou dañu ne ko jamono cooroon la woon. cooroon. cooroon mooy wax jamono yi nga xam ne hmm. ci la ñuy daanaka day ci yi ñu toll. Hmm. mooy cooroon. mooy cooroon. nga xam ne ci la ñuy ruuj di waajal nawet bi. Hmm. te sëriñ bi nee na bi mu bi mu bi mu bi yàlla daa bëgg daa bëggoon xam te xam ne ci la daje woon sëriñ bi. Hmm. waaye yàlla deful woon mu xam bis ba. Hmm. mu ñaan ci sëriñ bi. mais yàlla na ko yàlla wan bis boobu nga xam ne ci la daje woon ak sëriñ Saliou. mina mina mina. ba di ci mën a sant sëriñ Saliou. lay ndeysaan. bi loolu amee nag mu nekkanoog seen soxnaam si wax soxna Aïssa Kane. doon mhm. ñaareelu soxnaam. Mhm. donc nuyu de passage. ñu koy fay baax kan. moom soxna Mboose ak mboolem njabootu suñu béykat yi. koy siyaar. lay bu baax a baax. Mhm. Eh, yàlla def biñ tuddee ba guddi. soxna Aïssa. daal ni bëri. ñu koy sëñ Béthio. sëñ Béthio 17 avril 1946. 17 avril 1946 mooy lan. dégg nga Cheikh. da ciy waxoon ne ko yow li ngay wax. laay lay sax ko man nii naa ko xam. man maa ñaanoon Serigne Saliou. allahu akbar. mu won ma mu xamal ma jabar ji may dajeeg moom ak dat ba bu ma ko ma lay xam. soxna a baata ma naan jërëjëf sañ Mouride jërëjëf. walaay kontaan nañu. jërëjëf kon kontaan nañu ci moom jërëjëf. xam naa ni xam naa ni lu ñu bëgg ci moom rek mooy mu mu may ñu mm-hmm. jotaay uh-huh. boo xam ne dañuy jàkkaarloo fii loolu ñu neex waxandi ko waxandi ko dinañ tànn benn jotaay boo xam ne waaw Cheikh nee na dina tànn jotaay boo xam ni du ñàkk jàkkaarloo ceeg yow incha allah jërëjëf sañ Murit siyaar nañu bu baax wallaay ndeysaan waaw buñ la bu yow yow yow buñ la déggee rek suñu xel day dem ci suñu sang bi noonu la ñuy siyaaree it sëñ Saal ndigal cuun di ko ñaanal moom it mu yeggal yéene yëpp incha allah wallaay ndeysaan jërëjëf cuun mhm. jërëjëf ok jërëjëf léegi euh, euh, dafa am fu ma lay bëgg yóbbu balaa ñuy dem. Mhm. foo xam ne damaa bëgg ñu jógandoo waat rek. waaw waaw sant rek. maa la wax. Euh, parce que tey émission bi li ñu bëgg mooy. comme ni ñu koy doxalee nii rek. Mhm. comme ni ñu koy doxalee dafa neex trop. Ah, waaw maanaam nekk ca rek. nekk ca rek. Mhm. waa nekk ca rek ba ñu fekk ñu ca. maa la ko <laughs> ñu ca fekkee rek ñu am ca ngërëm. waaw xam nga Serigne euh, maam Serap Fall dañu woon. Mhm. Euh, jërëjëf tuddul jërëjëf. ku jëf la. ba jël jëf. maa la ko wax. boo jëfee nag ba jël jëf. jëf ca la nga ca war a jëf ca ngay am nag. jërëjëf jëf mhm. baatub jërëjëf jëf te ku jëful doo ko dégg mhm. te yoon wi nag jëf la mhm. ak jël bu ñu la ah. diggalee nga jëf daal di jël waaw dafa am fu ma bëgg fu ma fu ma la bëgg a yóbbu déglu lii kay ma wan la Cheikh Béthio kay na man tikook buur ba la Cheikh Béthio Serigne noon min dalay ilala ay nawritulaay yesal Cheikh Béthio fa jëm min na yoon wi mën na gëm ma sax fi nu yóbbu Cheikh Béthio kaa ñu dellu ba tax nga am ngërëm naan ca leer ya mel di xeetali jagaayu nar te taxul ngaraw mucc gaa ngi ñëw leen tarbiyam ci yoon wi di leen nekk soo amul ngërëm tay mu yay la leer na Cheikh Béthio Omar Bassirou jiite jànkalaat gi yan ci wa kay leen jaan yu mag ya ak seen lëndëm nga soo xamul borom jamono gëm ko daw ma sag mucc ca pax yu xóot ya Cheikh Béthio ak ñi la noonu ñoom de sëñ Saliou lañ bëggul ndax maandu leen ci ki ndax ñoom de yàlla te yàlla xel xalaasul mbiram ndax sañ-sañam la yor te du soob def nangu leen dogal yi màkke mooma yeewu leen balaara ca weesoo kuy xalaat nga dootal ba mentoo bay nelaw ëllëg jar na seen dugg Cheikh Béthio ba ñun Cheikh Béthio di nga fa waaru Cheikh Béthio Serigne Saliou rek amal sa bis ba doo jaar si raat ba sant war na waa asalem saara Cheikh Béthio barke yaa fi jëf Cheikh Béthio Cheikh Béthio Sawbe dana fa moom bés yi ko yëndal kaajo yàlla dee <laughs> ne ko la la vidéo nopp yaa ngi ne feew de <laughs> waxuma dara waxuma dara xaw ma tuñ ji xaw ma mantalatu la ñu di xaw ma <laughs> non vidéo yàlla dee vidéo vidéo vidéo day wax dëgg nga xaw lii lan la eh? mais ça gis nga vidéo bi ah loolu la gars yi doon daal loolu la yi di balagee di ah? nga nga mi nga <laughs> non vidéo xam naa xam naa dañuy dañuy daal di tàggatoo parce que waa Sen TV ñoom dañuy dem journal mm. euh, Zik FM tamit euh, Momo dafay daal di jël dix euh, quatorze heures ba dix donc ñu waxaat leen que ni tey incha allah ak sa sàmba lu ñu am ak soxna Fat Bintu Ñang suñu bàyyi ablaay Ñang suba nag am nañu face to face diggante Ketchup ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye kii kii Mbaye nu mu tuddati euh, euh, kii Alaaji Mbaye voilà Albouri ak Njambaan euh, ki nga xam ne moom moo di kii tamit dana ca teew wulli dana ca teew ak ñaari mbër yoo xam ne surprise lay doon suba incha allah partir de 21 heures Mohamed kontaan nañu vraiment ci. Cheikh euh, bëgg nañu. kontaan nañu vraiment ci teew bi nga teew ci plateau euh, El Hadj Mamadou Ndiaye Doss. ndeysaan kontaan nañu tamit ci li nga teew ci Zik Feeling en live bi. macha allah vraiment bëgg nañu ci disponibilité bi wax dëgg yàlla jafe woo jot. te oyofal nga sa bopp. te wax dëgg yàlla boole nga sa bopp ci ñëpp. macha allah yal na yàlla defal la tawfeex. macha allah yow it ñoo ngi am mbégte loolu. Mm. ci jàkkaarloo ak yow yow vraiment jàkkaarloo ak yow dafa neex. walaay ndeysaan. waxuma la sax métier mii ngay def te mën ko mhm. waaye da di borom xam-xam yàlla dogal na li ñuy woy du ñëpp koy dégg mhm. waaye yow euh, di nga dégg li ñuy wax mhm. loolu nag du ñu bett ndax keppaar gi nga yaru la walaay ndeysaan ndax ku leen xam xam leen ci xam yàlla ak bëgg suñu borom jërëjëf ba tax na kontaan nañu ci partager ak yow émission bi waaye ñoo ngi yëgle programme yi nga xam ne moo ne ci suñu kanam bismillah ñu dëgmal ko ñoo ngi ànd ak promoteur bu mag bobu di Papa ndjay ci jurbel hmm. bu ñu koritee ba mu samedi ba ci jitu moy la 7 di tombe ak la 7 mai ok bu ñu koritee le 7 mai ñoo ngi jëm théâtre vert du jurbel bu jurbel kon wa jurbel xaar leen mohammed wa jurbel lan nu xaar chaque mhm. année la lolu waaw bu ñu fa joggé ñoo ngi jëm Kaolack jouru korité cœur de ville cœur de ville ànd ko promoteur bu mag boobu di tuubalaay mooy jouru korité ah mooy jouru korité loolu dina neex moom tamit chaque année lañ koy def ñoo ngi ci woo waa Kaolack gépp di ñaan ci barkib Serigne Saliou jouru korité ku ne xam na ni feet la mhm. te feetu l'islam la ñoo ngi ci woo ñëpp mboole seen lu wër Kaolack ñoo ngi leen di woo ñu ñëw Cœur de Ville mhm. ñu ànd sant Serigne Saliou mhm. waaye it le 12 novembre ñoo ngi ànd ak promoteur bu mag boobu di Bamba Bamba Faye Bamba Faye waaw. ñu war a jëm foofu ci Sorano. Sorano le 12 novembre. waaw waaw loolu dat loolu sama dat la nag. waaw waaw mi ngi noonu loolu sa yëf la. loolu kay Touare Fakar la moom danañ ci liggéey lu yaatu. wax Sénégal gépp nañ ko waaj. Mhm. incha allah yii ay événement la yoo xam ni euh, dinañ ci ànd ak ak promoteurs yu mag yi ñu tudd. wallaay ndeysaan. may gërëm nag wa génération Serigne Saliou. Mhm. di ci jiital seen jëwriñ jëwriñ Cheikh mooy xale yi ma sëñ Cheikh booleel. wallaay ndeysaan may wax képp ku ci bëgg a rek. Mhm. na nga woote ci numéro yii. ndax liggéeyal liggéeyal Serigne Saliou rek moo nu ñor te moo nu fi bàyyi. 78 203 72 97. 77 845 83 61. lay des 77 162 83 94. képp ku bëgg bokk ci génération Serigne Saliou mooy xale yi bëgg a liggéeyal Serigne Saliou. Mhm. boo wootee ci numéro yi di nga bokk ci génération bi. nga xamni fuñu mëna woté muy xel ko mag lu mëna doon mhm. nga ñew and ko ñun ñu Serigne saliw inshallah allah Cheikh ma ngi gërëm ñëpp di sant samay wayjur mhm. di len ñaanal sunu borom yagal len fi ba mbolé seen yéene buñu am ci ñom ñu matalé ko mhm. ma ngi gërëm sama soxna su baax ci njoba lay njoba ah, lay maxtaar ñoo koy ñaanal sa borom sam ko té ar ko amiin yaa rabbal maa ngi gërëm Sénégal gépp nag ndax ñang buñ ko waxé rek Sénégal gépp jug. wallaahi dëgg ndax sëriñ Saliou. nit ñi bëgg ma. lool ba amuñu sago ci man. ba fu ma leen woo ñu wuy si ma. maa ngi profito di leen remercier ci grand théâtre bii ñu génn. nga xam ne ci waxtu diffisil lañ ko wootee. Mhm. nit ñi bàyyi seen yitte. bàyyi lépp ñëw wuy si ñu maa ngi leen ci sant di leen gërëm. Mhm. maa ngi gërëm samay staff. di gërëm sama ménageur. di sant ñëpp. su ma limee damay juum waaye maa ngi gërëm xalifa ñaa mi nga xam ni moom laa ànd ak moom ci woy bu bees boobu nga xam ne moom lañ def jagleel ko euh, Cheikh Béthio diggam ak Serigne Saliou ci soir boobu waaw mi jublu si bindu woy wi mooy wane kenn ki nga doono ngeen si si groupe de presse leader d téléchargez l'application des médias.